ثواب الله في كل خزوة مع الحب والرضوان والقرب والقربات يا دوم الرحمن حقا وكلهم نبس الذي قد يطوفت بدلا وجنبني الحجاب والكبر والكسبى أن لي كرامات وكل بلا انتهاء بما فاق سني ولتسفل لي الصعباء مددت يدي يا مالكي راجيا لكم خريبا منيبا عن سلوى سفر الرباء dogal yi jóge ci France ak santé parce que waaw ñun dañuy filmé ñu néew ñu ci. ñoo filmé kañ waaw ñoo yónni. waaw yëpp jaarale dégg nga bataay yi ni ñu ko waxee keroog bi ñu taxawee ci bureau Ndar lii lañ bañoon mu soog tey ñu ko fay fàttali ko ñaar laaj ko waaye caravanement yomb ci diggalu seen ñu taxaw ànd ak le président. Serigne Cheikh Mbengue Baye Fall ko moom waaye tamit boolem murid yëpp ànd ko Serigne Mame Dame Mbaye jàmbaar ñibbi si waat fii ci xarnu yeneen ci benn ak Badar ñoo dàq ba Marabu bu leen ci gaaw leeram gi sar na ci asamaan ba sar na fi suuf bi xar na fi waa koy naan ko man maroo fii la gis ak weer ak saxaat yi soppi ko ay jëm di xar aadaat di ko dugal naan ko noolay seere yow mal xiyaamati li lay ko biire yi la Bamba way ca boobee téere yi lay bayit jommal na bépp fóore teg ko ca mel ni jël yóbbu ko deqale sa maam moo am tax xabaale ko nga ko kii ko déglu ma wax la ba ci rek ci wax ak mbër ma ci wax ak loolu jëmal Jawab Abdullahi sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ auzu billahi mina saytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa jismani وليقبل الكسبان قديم لو ما يسر إنسى عبادة وأرجو قبولا منه خطور سلبس جعلت كتاب الله يردي وأتقي بتدليلي ما سرت وسالا لأبا علي لربي دين تبديلي وإني لا قولي أوب بي أبا لربي عملي ثم سكري بلا انتهاء على حمدي وكانني وليرادا دائما وجانبي نجوت بإذن الله من سطوة الهداية وليرادا أمدرا ولي كرم الجنبا أقاسني الحنان من كيد من خلا وساركنا للخل لي بر ما ينبغي لنا وزاركنا للخل لي برما ينبى مدادي وأقلامي ولوي وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبة مدادي وأقلامي ولوي وكلكلي جسمي لمن لي وجالي سوى الوهبة نويت له شكرا كثيرا كما ما دنا بي واسفي يوما جوى اللهبة لا جل سكري سداني بفلي وجاي الذي مديلو سال لي عتبا لو جل سكري سداني بفلي أناني بسكر الذي طيب القلب نفعني الشيطان ولا بكيدي وقيل جادا منه من أمتي دبا كفاني نفيس خير مانع هنا سكوكا ووسواسا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 أبني من رفعه إليه مكاتبي واكبني ربا ريم شكور أرجي xeer wi nga teg mooy wi Serigne Touba teg ndax yaa fi Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha moo fi Serigne Touba kon loola yóbbaale na sëñ Modou Moustapha sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ xam ne maam Mor Diarra ma kon wii ñuy war a tegaat maam Thierno Birahim na ko teg ak rek sëñ Tuubaa yi wacay tege sëñ Bousso bee koy teg sëñ Fallou Bousso bàyyee moo teg boo ko defee wii ma tegal ko seex Ibra Fall maak sëñ maak sëñ muy ñeenti xëy din fi indi kon nag nan ko tege noonu ak sa dégg ngeen sëriñ Cheikh Khadim da di déglu nag bismillah jox xeer woowu ñeenti xeer la sëñ see Xadim dane sëriñ bi xeer bu njëkk bi sëñ Basiiru tegal na ko sëriñ Tuubaa moom mi ko fi nekk nekkal kon jeex na ana beneen bi ok sëñ Seex Xadim dane benn xeer bi tegal nañ ko sëñ Tuubaa bu njëkk bi bi ci rakki Serigne Touba lañ koy tegal muy maam Thierno sëñ Ahmadou Mbacke mii di sëtam di ko ko tegal ak ñi mu bokkal maam Mor Anta Sali gépp ñëpp dugg ci maam Cheikh Anta ak sëñ Massamba ak ñëpp kon na ko teg bisimilah barkeb Cheikh Ibra Faty kam doon liggéeyal bàyyi leen mu teg ko rek beneen xeer bi ci topp bu fàllu bu sa nekkoon dana ko tegal sëriñ bu soobe ak mboolem bu soobe gépp sëñ Seexuna yaa ko yëkkati teg ko ci daraje sa maam sëñ Tuubaa nag nañ ma jalaatal ciment nu wax nag kan mooy teg xeer wi ci des xar ka sëñ Tuubaa mës nay xibaar ak jébbalu bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni Bàmba moo moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon waa ab murit di jaar ba pexe marit ba ngërëm bari murit ba dootu ree di tex texi mu daal di dem tay ba Ndaxaar ci njàng lay xamee pexe. sëñ Cheikh Khadim mooy tegal maam Cheikh Rahima Fall xeer wi moog sëñ Jili Fall moom sëñ Modou Ablaye bisimilah. Cheikh jàppal Cheikh Mbengue fasaa leen Serigne Cheikh ndigal. ak sa waaw waaw waaw nu may sëriñ bi nu may sëriñ bi kàddu yi jërë ngeen jëf na baax na Serigne Cheikh Khadim lu muy wax waaye nag tey Fall tey leen Serigne Bassirou Mbacke yi muy rotol. sëñ Basiru mu ne asalaamaaleykum. ñu ngi nuyu mbokki taalibe yi fi nekk yëpp. nee mi ngi nuyu mbokki taalibe yi fi ne yëpp. Ah, kaddu yi kaddu cant rek la. nee na kaddoom yi kaddu yi cant rek la. mu ànd koog sëñ Ahmadou Mbacke mi ak sëriñ Mouhamadan. ak sëriñ Cheikh Khadim Fall mi. ak sëñ Baye Dame mi. ak mbooleem taalibe yëpp. ne ñi ngi am mbégte bu baax ci lii de. di sant yàlla bu baax. di sant yàlla bu baax. di sant Serigne Touba bu baax. ne bi ñu xamee ñëw nañ ci bis bii. nee bi nga xamee ne ñëw nañ ci bis bii. dajeeg tey nuy jox Serigne bi suuf si tey. ne loolu day cant la ci moom gu mat sëkk moo ngi mu àndal. ne ñu ngi ci ànd ak Serigne Cheikhouna Bousso ñoom ñii ak Serigne Fallou Mbacké ak Serigne Abdou Bousso ak mboole waa kër Serigne Touba ñëpp fekk fi nag mbokki taalibe yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañ ci bis bi ak ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañ ci bis bi te Pastef képp rek yëkkati leen sëriñ bi nee na ñu ngi leen di sant bu baax a baax. nee ñu ngi jéem a gën am na xel mu dal. ci lii lii nga xam ni lii am na. nee lii loolooy wane ne. Ah, yoonu sëriñ Touba day dem kanam rek. Ah, waaye dara du ci dellu ginnaaw de. nee lii firndel na ko. ndax yàgg nañ fee ñëw ay at. ku ne xam na ne tey jii am gis nañ ci ak ak dolliku bu baax a baax. waaye ku ne xam na ne tey jii gis nañ ci ko bu baax a baax. allah la ca te ne incha allah la ca kanam itam. danañ dem a dem bay ubbi kër gi. danañ dem a dem bay ubbi kër gi. min di ubbi jumaa ji. di ubbi jumaa ji. di ubbi daara ji. di ubbi dem ba am ñu fi mokkal alxuraan. danañ dem a dem ba ñu fi mokkal alxuraan. dinañ dem ba gis fi mbooloo mu bari di fi liggéeyal sëñ Tuubaa. ne yàlla na sunu borom àggale lépp ne sant na ñëpp nag. ne ku ne xam na ni murit boo xool Pastef nga ñëwee. kon ne la mu daan ubbee na ko waxaat rek. nee fàttalikuwaat nag Serigne Fallou Bousso te di ko ñaanal bu baax. le ko ci njabootam gii teew tey. ne mel na ni lii xalaat bi ci moom la ko Serigne bi jaarale de. kon yàlla na yëpp sotteeg jàmm kon ne mi ngi ñaan sunu borom faj aajo yi ñi fi ñëw ñëpp ndax ku ne am nga aajo nee na yàlla nu ko sunu borom fajal ci barkeb sëñ Touba jërëjëf kon nu bokk déglu kàddoom yi mooy kàddu Serigne Mountakha nu déglu Serigne see Khadim Fall ay kàddoom. Serigne bi ne ñi ngi tuubal yàlla sunu borom. ne mi ngi tuubal kilifa yii di sëriñ si muy yëkkati kàddu ci kan ci kanam ci seen kanam waaye nee na lii cant gu rëy la de ci ko yàlla taw fii nga fekk ko ne fii la sëñ bi doon jullee ñu ko koy tere ñu dem ba ko fii defal juma di ko fi defal kër yàlla sunu borom dogal na. Cheikh Mouhamadul Bachir mbake mi ëpp lu bind ci taarixi sëriñ bi ak njabootam di ko teg ne Mamor mi magi sëriñ bi ak njabootam teew na maam Thierno mi sëriñ bi yónni woon ci tubaab bi ak njabootam teew na njabootug mbusoobe gi mel ni sëriñ bi gi mel ni sëriñ bi ñoom ñoo sos bis bi alhamdulillah ne nun taalibe yëpp nag ci tulu maam Cheikh Rahma ñu am ci taxawaay nag moom mii mu am ñu am ñu war cee am nag taxawaayu jëf ne mi ngi jaarale ci kàddoom nag Serigne Cheikh Mbeng mii Baye Fall Mayumba ne ginnaaw alali Cheikh Ibra ba noppi liggéey bi Serigne Fallou Bousso bàyyi woon ko ci loxoom loolu day wane rek liggéeyu Serigne Serigne Touba ni ko Cheikh Ibra ni ko Serigne Touba nango ne mi ngi digal mbokki taalibe yëpp moom mi ne mi ngi nuy laabire nun taalibe Serigne Touba yi nun ñi teew ak ñi teewul ku nekk na fexe fexe def ñaqam te yàlla tax ak jëmmi Serigne Touba ne loolu yi moom mii di ko wax nee na bu kenn jaarale dara ci moom de day ñaan Serigne tuba ni mu defalee ñépp ay xéewal bañ jëf bañ ciy jëf nee na moom mu defal ko ko ak nun Mbàkke Serigne Cheikh Khadim Fall nee na fas na yéene dina ci def ñaar fukki million yoo xam ne Cheikh Ibrahima Fall la koy defal fii nee na bu ko waxul ne nañ ko ci jàppale de ba foog ni dañ ko da ko yute xaalis ba nit ñi bëgg foog loolu nee laajul kenn dara ne ñi ya ni ko yàlla booleel ak li ko Cheikh Ibra terale ne loolu la bëgg jëfal ci sëñ Touba fii defal ko Cheikh Ibra. mu addiyee sëriñ suru maam say njaay yàgg naa daane sëñ Njaay baax na soxna Ndeye Faat jërëjëf ñaar ñiy ànd sëriñ bi muy sëñ Mbàkke ak sëñ Mohamed Dieng nee na ñoom fi taxaw sëñ bi soññu leen joxe nañ kenn ku ne un million loolu ci turu sëriñ bi lañ ko def lii nag am na lum mu nu war a jàngal sëriñ Touba ànd ak maam yi jëmm ji di wër ñetti dërëm mënu ko am waaye leeroon na ko ni lépp ci loxoom lay mujj murit taalibe addiya liggéey bi nan ko def suñu lépp bu nu bàyyi koo yéene jàmm te mu ne senegal wala mu ne Europe woo ko ne ko dugalal sa xaalis ci liggéey bi dama laa yéene jàmm tubaab bi kat bi ñu koy wàcce fii mu romb te xoolal li doy waar mooy fi ñu jox mooy fi sëñ bi jaar fii la wàcc raas baa nga ne buñ demee ni xool ko ñu ne nañ ko sànni ji ndax rab ya fa ne jëfandikoo ko ah dañ koo sànni si woon ah ñëw ñu woon pour tëj ko fi dañ koo sànni si woon Cheikh Ablaye Dieye mooma ni sëñ Ablaye yónni na ma ma ma dem fekk ña tubaab bi rey en 1890 ba mille cent daw me ñetti góor lañ fi rey fii yawee ma yamara ak Dax Silva Félix ak Guède Côte d'Ivoire ñu rey fa juróom-ñaari góor fii lañ leen faat fii reyukaay la woon Dékku Jomati Aladaye Sosu Kodetu Sambi Kilo ak Anteño Samori Touré Njole ak Saranke Cëru Mori ak Mori Suma Jabate Ñoxor Baay Juuf fii lañ ko faat Mandumbe Mbóot ca Waalo fii la ko tubaab bi faate ñu doonoon ay bañkat ak Demba Alarbe waaye nag kenn leen të ki semmal Fuuta gàgganti gànnaar defar ñëpp Mbàkke jërëjëf Mbàkke na danoo bëgg nga ñaan tey sax bul ñaan woowal sëñ Basiiru woo sëñ Muntaxa mi fi sëñ Tuubaa taalibe yi bu kenn manqué ba fii pare nu am addiya wér ndax ñi taalibe yi danoo yéene sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa nag lu ko waay yéene na nga ko xam loo ko yéene na la dal lu waay bi mu yéenee sëñ Tuubaa rek ko dal nan leen yéene sëriñ bi Mbàkke nu bëgg nga ñaan tey màggal gu neex nu màggal ko ren nga ñaanal it sëriñ Muntaxa mu yàgg fi waaye mu yi wax leen sëriñ Muntaxa yàlla na fi lii lépp ci ayam la nee na li ma wax nii nee na sama xel dal ndax lii mbirum sëñ Tuubaa la ko kenn kon nee na na sunu xel dal alhamdulilah. wajal bihi masjidi rahba masjidi rahba yàlla nag ma defal jàkka ju yaato yaatu yàlla nag ma defal jàkka ju yaato yaatu loolu nag moom may nañ ko ko fa Touba ak fa Njaareem nee na may nañ ko ca Touba ak Njaareem de ak fa Ndakaaru ak fa Ndakaaru ak fa Ndakaaru de waaye fii nag ma koy ñeenteel bu soobee waaye yàlla <laughs> Euh, sëñ Seexuna nu déglu sëñ Seexuna nu déglu. teewlu leen tuuti teewlu leen tuuti. waaw koy sëñ Daam mën na koo jottali ay kàddoom. asalaamaaleykum. mu defaale ci ay kàddoom moom. waaw dafa am lu ma doon waxtaanee ak sëñ Ahmadou Kero. nee na daa am lu mu waxtaanee ak sëñ Ahmadou Kero. sànq bëggoon a jéggat wax ko sëñ Cheikh Khadim mi nee daa bëggoon a jéggat wax ko sëñ Cheikh Khadim. waaye gént waaye gént rek la. daa mës a gént Cheikh Ibra. nee daa a gént Cheikh Ibra moom mii. mu ñëwoon muy ju am personnalité. muy jëmm ju am personnalité. ju am taxawaay ju am taxawaay. ne ma ku baax kee ma yabal ne ko ku baax kee ko yebal. la tax mu yabal ko wax na ma ne la tax mu yabal ko wax na ko de. mu ne ma sëñ Tuba bu nekkoon jëmm. ne ko bu sëñ Tuba nekkoon jëmm. maay tànku ndi joor bi. maay tànku ndi joor bi. la ca des nag. ne la ca des nag. bu ñu wéetee dana la ko wax. bu ñu wéetee ma wax la ko. incha allah incha allah. pour wax la ne sa taxawaay day mel ni mënu fee ñàkk. ne sa taxawaay day mel ni mënu cee ñàkk de. ay tànk bala ngaa mën a dox. ne ay tànk da bala ngaa mën a jox de. faawu ndi joor ba am. te sëñ Tuubaa bu ñu ko waxee. nee sëñ Tuubaa bu ñu ko waxee nag. moo njaboote lépp moo njaboote lépp. ki ko toogal. ki ko fi toogal. mi ngi fi mi ngi fi. deretam. deretam. ñi ngi fi ñi ngi fi. soxna jaaraa ngi fi. soxna maam jaaraa ngi fi. sëñ bu soobee ngi fi. sëñ bu soobee ngi fi. borom saam mi mu bokkal lépp a ngi fi. borom saam mi mu bokkal lépp a ngi fi. Cheikh bu soobee ngi fi. maam Thierno Birahim Cheikh Ibrahima ak ñi leen yaakaar ñëpp. dama bëgg jamono ji buñ ci toogee ñu xam ne ki ñu yaakaar. nee dafa bëgg jamono ji buñ ci tolloo ñu toogee ñu xam ne ki ñu yaakaar. liñ ko yaakaaree lépp da koo am ba am lu mu desal lu kenn xamut lu mu. nee dafa liñ ko yaakaaree lépp da koo am ba am lu mu desal loo xam ne kenn xamut. jamono ju ne damay bëgg man nit ñi. nee jamono ju ne day bëgg nit ñi. sëñ Tuubaa mi am. sëñ Tuubaa mi am. fu ñu dem man koo layal. fu ñu dem mën koo layal de. ndax fële ca gànnaar. fee ca gànnaar nee na. dafa toog benn bis. daa toog benn bis. ne man mii. ne man mii. fa ma jëm ëllëg. fa ma jëm ëllëg. ak yéen ñi ma topp. ak yéen ñi ma topp. fa ngeen jëm ëllëg. fa ngeen jëm ëllëg. ne sama rëdd baaraam yi ni ma leere la ma leere. ne sama rëdd baaraam yi ni ma leere la leen leere. loolu nag nee na danaa leen ci joxi firnde. nee dinaa leen ci joxi firnde nag. ba ca njëkk mooy feeg déwén. ba ca njëkk mooy feeg jëm déwén. dañuy dem Jolof dañuy dem Jolof. ñaareel ba feeg déwén. ñaareel ba feeg déwén. kenn du fi faatu kenn du fi faatu. wax loolu. te jamono ja muy wax loolu. am na koo xam ne mi na tawat bay lappi lappi. ñu ko sëñ bi bu faatoo. ñu naan nañ gaa wax ko sëñ bi bu faatoo. bañ ne bañ demee xool ko nag wax joojoo sax koo wéral. ginnaaw loolu nag la woo sëñ Maxtaar Bintaloo. ne ginnaaw loolu la woo sëñ Maxtaar Bintaloo. ne ko Maxtaar demal ma ci fere yi. ne ko ma ci fere leen nañ sant yàlla. nee leen nañ sant yàlla mu ñëw mu ne ko ana lu ñu wax. nee mu ñëw ne ko ana lu ñu wax. mu ko ñoom de sant nañ. mu ne ko nee na sant nañ de. waaye am na lu ñu wax. waaye am na wax. mu ne ko lu ñu wax. nee na ñu ko mu ne ko lu ñu wax. ko ñoom de bu sant. mu ne ko bu ñuy sant nee nañ. yow ñuy sant. yow la ñuy sant de. mu demaat yoonu ñaareel. mu demaat yoonu ñaareel. ñu waxaat ko loolu. ñu waxaat loolu. ñetteel bi mu ne leen. ñetteel bi mu ne leen. ku xam yàlla dëgg de. ku xam yàlla dëgg de. dana la wóor ni. dana la woor ni. sant ma mooy sant yàlla. sant ma mooy sant yàlla. pas-pas boobu buñ ko amee. pas boobu yi buñ ko amee. ñun lu ñu def danañ ko mën a layal. ne lu ñu def rek mën koo layal. liggéey bi nag moom xel da cee njort da cee rafet. ne liggéey bi nag njort rafet na ci de. waaye nag ci lii ngay xamee ne def lu baax. ne ci lii ngay xamee ne def lu baax. yéeneel. yéeneel. te am pas-pas. te am pas-pas te def rek. te def rek. sëñ Fallou Bousso bu fi nekkoon. sëñ Fallou Bousso de bu fi newoon. mbég ma de moom. mbég ma de moom. xam naa ne tey jii koy raw. nee na xam na ni tey koy raw Mbacke. ndax ne ndax. démb sëñ Seexuna bi mu ànd ak sëñ Kalaam. ne sëñ Seexuna bi mu ànd ak sëñ Kalaam. ak sëñ Jibi. ak sëñ Jibi mi. damaa wàcc. dafa wàcc de. la tax ma wàcc xamu ko. ne li tax ma wàcc sax xamu ko. gàllankoor rek la woon. ne gàllankoor la woon. waaye bi ma agsee ba toog. ne bi ma agsee ba toog. damaa gis sëñ Fallu. damaa agsi rek tëdd. ne daa agsi rek tëdd. mu teg nee mu teg baraada moom sëñ Fallou Bousso ne ci teraanga yu rëy nee mu ñoom seex ñii kenn ku ne ñëw mu ne leen liggéey bi mu leen soññ kon mu xam ne li ngeen di def yàlla mën ko koy yëgal yàlla mën ko koy yëgal de lam defoon nag moom xam naa jàpputoon ne dana àgg fi nee lam defoon xam jàppuloon ne dana àgg fii de waaye sëñ Tuubaa loo ko defal waaye sëñ Tuubaa loo ko defal te muy dëgg dana la fay lu kawe njort dana la fay lu kawe njort loolu nag loolu yi njabootam ak ñi nga xam ne ñoo am moom kóllëre di def liggéey njaboot géeg ñi am moom kóllëre ba def liggéey ba agsi fii nee na ñëpp ci pay gi lañ ndax sëñ Tuubaa wax ne ndax sëñ Tuubaa danaa ne yàlla neex naa liggéeyal yàlla neex naa liggéeyal waaye naqari na liggéeyal waaye naqari naa liggéeyal li tax mu naqaree liggéeyal mooy li tax mu naqaree liggéeyal mooy booy jëf day mel ni gisu la day booy jëf day waaye bu tàmbalee fay waaye bu tàmbalee fay du xool ba xam yaa ngi dund du xool ba wala dundoo yaa ngi jëf wala jëfoo ana Cheikh Ibra Fall ko suñu ana Cheikh waaye ñii ñëpp ci barkeem rek yàlla day fay rek sëriñ Tuubaa mi njaboote lépp tamit sëriñ bi njaboote lépp it lu ne ñun ñii kenn ku ne dina teral dina def lu ne sëriñ Tuubaa tax barke boobu nag ñi ñaan suñu borom defal ko barke boobu ñi ngi naan borom defal ko ko wàcce ko ci njabootam wàcce ko ci njabootam wàcce ko ci kóllëreem yi mu nekkaloon liggéey bi wàcce ko ci kóllëreem bi ñoom nag ñu sant lañ ndax ñoo ko taaw ba mu agsi ñoom Seex Mbeng ñii bépp jëf boo xam jëf nga ko. bépp jëf bu jaam jëf. nga bàyyi ko fi ñu koy continuer. nga bàyyi ko fi ñu koy continuer. lépp luñ ca def tiyaaba dana la fekk foofu te du wàññi ci ñi koy def. loo ci def rek tiyaaba ba dana la fa fekk te du wàññi ci ñi koy def. bu ñu amoon bëti xol. bu ñu amoon bëti xol. danañ am yàqin ne sëñ Fallou ma nga ca teraanga yu rëy. dinañ xam ne nag sëñ Fallou nga ca teraanga yi gën a. yàlla na agsi ci ñun ñëpp. yàlla na agsi ci ñun ñëpp. ci barkeb sëñ Touba ci barkeb sëñ Touba. jërëjëf mm. ah sëñ bi nee na li mu wax nii du gént de ndax 2016 bi mu fi mujjee moom sëñ Fallou waa daayiraam bi sëriñ sëriñ Fallou Bousso waa daayiraam bi bisub dimanche mu ñuy daayira nee na keroog soñu la leen doon def dem ba ci biir mu ne xam naa ne du ma ko fekke waaye na ngeen ci taxaw kon li nga wax ni du gént loo gis la waaw. nee na sëriñ xalil mu baax ma moom sëñ fàllu moo ko ne moo ko ne ma ngi ca àjjana sang su baax si teew nanu xam ne fii nu teew sëñ Tuubaa faj na seen aajo nee na sëñ xalil moo ne ko alaaji mu ne ko sëriñ sooy boo ko ni ne ba mu ko nuyoo jugee jóge Gabon mu ne ko xalil kañ nga ñëw mu ne ko bërki démb laa ñëw mu ne ko dem Gabon dem nga Maayomba mu ne ko déedéet ne ba mu ñibbisee la jàpp yoonu Maayomba ne sëñ xalil la ko wax yow la dëgg la bu sëñ sëtub sëñ Tuubaa teewee maam Cerno sëriñ Musoobe teew fi Cheikh Ibrahima Fall mi dajale lépp ngànj yi ba ñu mën a jariñu amin barke sëñ Tuba eh sëñ Bam da sëñ Baye Dame mii da ne ma won dama amoon yéene tey bisub tey ma joxeel Mame Mor Diarra borom saam 10000. nee dafa amoon yéen a joxeel borom da borom saam Mame Mor Diarra 10000 waaye tamit ma joxewaat benn ton boo xam ne dama koy jox sëñ Cheikhouna joxeel ko Mame Mor Diarra. nee mu jox beneen tonne sëriñ Cheikhouna joxeel ko Mame Mor Diarra. waaye dama ne du ma du dagg. nee na muy àgg danaa joxe mu ne fii muy àgg day joxe. 10000 boobu ma nga ma bàyyi kër xamul nu koy joxe. nee na 10000 ba ne kër ga jaaxal ko xamul nu mu koy joxe. nee sëñ bi jox ko addiya 10000. defaat na ko ci sëñ Cheikh bismillah <laughs> waaw wuy ma tey nga bari 10 000 jox leen ko waaye ku ma jox xam barke sëñ Tuba am mi nee ñaari minit ñu jox ki fi nekkal nguur gi teewal ambassadeur mu wax imaamu yomba wax kenn ku nekk ñaari minute muy 6 minutes mayaat leen ma benn minute 6 minutes ñu jox sëñ Cheikh Mbeng mu dóor ay seconde bañ dem fële lu mu fa bëgg wax dana ko wax bisimilah sëñ Cheikh. sëñ Cheikhouna moom daanaka kàddoom nee na dana ko àggale. sëñ Cheikhouna nee na kàddoom dana ko àggale waaye li mu doon wax rek mooy sëti sëñ Tuubaa yëpp. nee na sëti sëñ joxe ci bis bi liñ joxe ci bis bi dana ko àggale leeral ko ñëpp bañ jot ci. dana ko àggale leeral ko ñëpp bañ jot ci ndax waxtu wee jot xat nag jërëjëf kon moom dina non dana wax fële bisimilah. waaw ñu ngi ziar ñëpp kàddu yi moom lu gàtt lay nekk lu gàtt lay nekk ndax li waral lii jëmm ji nga xam ne moo ko waral. nee na li waral lii jëmm ji ko waral. ay sëtam ñu ngi fi. ay sëtam a ngi fi de. ñooñu ñoo gën a yellu ci kàddu gi. nee ñoo ñoo gën a yellu ci kàddu gi. ndax liggéey bi yëpp. ndax liggéey bépp. seen maam la ko liggéey seen maam la de. ba ñun ñu mën cee jëriñu. ba ñun ñu mën cee jëriñu. kon ñoom bu ñu waxee rek. kon ñoom bu ñu waxee. lépp tënku lépp tënku. li ma ciy dolli rek mooy. ne lim ciy dolli mooy. kilifa yi nga xam ne ñoo fi yebal. yi ko fi yebal. dina leen yegg dina leen yegg lii de. te lépp loo xam ni. te lépp loo xam ni. ambassade war na ko cee taxawee. ab ambassade war na ko cee taxawee. incha allah dinañ ci taxawee nee na dinañ ci taxawee noonu. ñu ngi ziar ñëpp ñu ngi ziar ñëpp jërëjëf. nee na da koy tënk ci français rek. oui on vous salue tous. mi ngi nuyu ñëpp. Euh, on a na ci ñëw gi fii. Euh, après ça le Cheikh Nas pour nous tous. nee sëñ tubaa pour ñëpp la. Euh, inna waliya Allahu lay nazzal ala inna awliya Allahi la xawfun alayhim wala hum yahzanun. waliyu waliyu Allah. nee na waliyu yàlla. comme comme Serigne Touba. comme Serigne ku mel ni Serigne bi. Et là maintenant, c'est envoyer des dieux avec euh, tous les religieux de musulmans. nee na yàlla dafa yebal sëñ Tuubaa pour ñëpp. ça y' a pas pour keneen ou keneen. c' est pour tout nee du murid rek ñun ñëpp bokk sëñ Tuubaa. non donc on vous dit on est content. nee tey bég na. asalaamaaleykum wa soññ ci ñu bari sëñ Abibu asalaamaaleykum ñi ngi am mbégte boo xam ne am na tàmbali waaye am fu mu yem sëñ Tuubaa nag weesu na lii fépp fu mu jaar rek day barkeel ka ka nga xam ne moom moo ànd ak moom te wañ waññu yoon bi muy maam Cheikh Ibra njabootam ngi nii waa ka sëñ Tuubaa ngi fi jëwriñ yaa ngi fi fii la daan wàccee fii la aw fii lay jaar fii lay jàppee kër sëñ Tuubaa fii la lim neen ci lu baax léegi nag soññi sunu mbokk yi nga xam ne am neen moyen ñi génn ko ñu jëm un milliard ku mën ci joxe di woo ñoom Madické ñoom Pape Diop sunu mbokk ministre ak député yi ñëpp ñëpp ñëpp joxe ci lu am ci nu mu gën a gaawee ngir liggéey mën a sotti jërëjëf. maanaam maanaam ñaari baat rek laay wax mbokk taalibe yi ñu ngi leen di jégalu ñaari baat rek lañ bëgg a wax ah, kenn ku ne xam ne ni ñaari doom rek ñoo am ci lu sax muy wàllu du xal bi ak wàllu du jis bi. sëñ bu Bousso mi ñu nekkaloon ci Gabon dund ak moom ci lu mat weeri at njabootam gi ñëw teew fii tey dañ doon dund ak moom mu taamu pas-pas ni damay woo ay borom pas-pas ñu ànd liggéey sëñ Touba bi ñu dajee moom mu wax ni nañ fi sosal sëñ Touba loo xam ne lu nit andeeti teg ko ci kaw mu attan ko te xam ni fanu doomu adama mbirum sëñ Touba ko gën a sori lu mu yàgg-yàgg ñun ñii ñëpp dañuy dem waaye bu ñuy dem nañ fi ba dara moom sëñ bu Bousso ci ak mujjam bi muy tàggoog ñun def ni li ngeen doon liggéey di ko defal sëñ Touba sëñ Touba nangu na ko te xam naa ci lu ma leer bu ma demee ci kanam sëñ Touba dinaa ko seere loolu rek laa bëggoon a wax ñu xam ni képp ku ci jëf ci sori ak jige wallahi azim ñun ñëpp nañ ci teg suñ bët ci ay njëriñ ñu ngi jégalu bu baax. sëñ Cheikh Khadim ñaan wa taala bi maskani. dinaa la kawalil maay sani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 من خلا وسارك نار الخل لي برما ينبع